dans la république di ci teg ay jéego. xam nga lu ma la ñuy libéré ñoo xam ne ay détenus lañ en masse ñu koy rafetlu. parce que kaso yi feesoon na tout sax ñu jël koo xam ne ca kër ga muy liggéey moom. comme que y en fait une, une un élan de de de de de libération et de décrispation moom ñu gis ñu enfoncé que à souhait jël ko. voilà traité ko nu ñu ko traité. mais dossier Ngagne Demba Touré mais bi ça date pas d'aujourd'hui ça date d'il y a huit mois. non dafa amoon benn mandat boo xamante ne. international boo xam ne gàllankoor nañu ko ci ndondam. donc exécution mandat boobu yéen xam ngeen ne yoon moo ko santaane donc mënuñu cee. effectivement donc li nga xam ne moom la yoon santaane est-ce que du moom rek la exécuter yéen tamit ngeen ngeen ngeen bëgg a commencer yu xoo alors mbir mi àggul fa la àgg. mbir mi mais tey mais exécution mandat d'arrêt ne signifie pas aussi que da ko war a placer sous obligatoirement ce mandat. mais mais loolu juge bi mooy xool juge bi. mooy xool moom mooy xool mais en fait ni ñu ci gis je pense que sax comme que dañu nekk dans.